la c'est pas politique te loolu dara du ko yàq mais yow dañ lay dollee ñaax encouragé la nag et comme je te la parce que xam nañu ni que excuse-moi du terme li ñuy wax naan il a le profil de l'emploi il a la gueule de l'emploi xam nañ ni que am nga ko mën nga ko doxal buñ la sasee nag ñu fas lay ne laa yóbbante parce que yóbbante politique man ci commune Thiès ku ko am mu jëm ci Macky Sall bul ma ko jox jox ko ko moom parce que moom moo laa jàpp ni c'est son interlocuteur loolu laa gëm man ba leneen di am kon man même bu fekkente ni bërki démboo Ndiaye gis naa président dama lay yóbbante ci moom nee ko na gën a gestu Thiès nee ko na gën a jàppale Thiès ne na yokk ay réalisation am Thiès que Macky Sall nous aide à oublier les chantiers de Thiès mën na ko que le président Macky Sall règle définitivement la question des chemins de fer mën na ko ñuy wax ni Thiès Dakar soriwul président na gën a miinal boppam waa Thiès nañu jaale ci suñuy dëj na ñëw ci ñun ndax liñ doon wax li Serigne doon wax fii rek lañ ko bëggee ndax nag fii bastion la politique science politique dafa am lu mu wax du ay diw waa dëkk ba ñu ko bàyyi dafa am des bastions positifs ak des bastions yi nga xamante ni day metti dañoo nekk ci bastion bu metti rayante ba am fi cent mille voix au niveau du département te loolu jigéen ñi ñoo ko liggéey en grande partie kon ñun dañ lay yóbbante li waa ji wax démb ci sëriñ Saliou ci Cheikh Béthio ni ku ko gën bëgg sëriñ Saliou gisu ko man je me détermine comme quelqu'un j'aime Macky Sall d'un amour enfantin c'est-à-dire je n'ai même pas de relation politique avec lui mais nag kilifa bu ngeen àndee nga jàpp ko te doo ko bàyyi doo ko war mukk doo ko gedd mukk doo ko jëw mukk bu ngeen àndee war nga koy ubbil bëtam ci boo ko mënee te xam nga pour lan ma koy waxee fii il ne faut pas que ceux qui sont pas avec le président Macky Sall yaakaar ni ñun dañoo ànd ak président Macky Sall ni ko Thiès daal loo ko defal doy na. dañoo bëgg li Ceesuwaa yi di sentir li ñu naan nañ ko dolli ñun ñu àndandoo wax ko ba Ceesuwaa yépp xam ni ñun ñii kenn gënuñoo bëgg Cees kenn gënuñoo bëgg le président Macky Sall fi may terminer madame le ministre na ko femme def il nous faut une permanence communale de Benno Bokk Yaakaar à Thiès permanence bu aw yoon lu ñu ci laaj ñu joxe ko ci am suñu permanence ba suñu jigéen ñi bu ñu ñëwee solo ñëw taxaw ñëw ci rencontre bu mel nii ñu bañ a ñàkk bañ a sonn bañ a froissé parce que mën na nekk je termine damay terminer monsieur le madame le le ministre pour beral nuyoo bu wér ñi nga xamante ni ñoo di ce qu'on appelle les communicateurs pourquoi je le fais parce que ñii dinañu dajeeg njaw ci mbooloo wax la ci jikkoloo amul te doo leen defal li nga xamante ni mën nga leen koo defal te ñoom ci ñun lañu far suñu njaboot lañu kon yaakaar naa ni loolu moo nekkoon kàddu yi di sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen wax ni leen nañu continuer ànd fi may terminer beneen élément bi dama ko fàtte woon Benno Bokk Yaakaar nag laay lancer un appel gis nga la ville de Thiès ce n'est pas les combinaisons traditionnelles qui vont le gagner waa reve de ñëw nañu 2012 gagné wuñu 2014 on n'a pas eu le résultat de remporter les trois communes pour les prochaines locales ñi ngi ubbeeku ci bépp force bu nekk ci dëkk bi mu ñëw jàpp ci ba ñu am ndam mën a liggéey dëkk bi maa ngi sant ñëpp di gërëm ko wasalaam